di DJ Boubs ak paa boobu xamoon paa boobu noonu fal nu paa boobu moom kanam gi rek ngay xool xam ni dafa soxora soxora soxora soxor Boubs bu Boubs naanal ndox game over gis nga fi fii mënu leen fii yuuxu critiquer ay sunu nguur gi naan ay ji maanaam dañuy romb bâtiment jàmbur filmer nii ak nii nii en tout cas man kenn taxul sama bâtiment sama bàyyi moom moom moo sàcc lii gis nga gars yi nañoo Sénégal du yokk euh, du sos day yokk rek yaa mais li ma si mooy paa bu boobu toog naan ay projet bi mu ñu jaay Sonko nañu bañ a jaay dara projet nañ di feuille vierge projet nañaa ah, moom la ñu gëm isaan fi ki la ñuy déranger mu leen fi jëlee mu leen fexe fexe fexe ba Sonko ngeen génn ko suñu xol yi mënul ne sa waay ut leen leneen boobu fi nga kuréetaa Youssou Ndour yaa ngi Mamadou Ibra Kane isaan fi mu Youssou Ndour amul lu mu la deful nga xëy créer sa sa entité waxoo ko sa créer nga sa entité xëy rek dem dégager plus grand traître de la de la comme yow la mais ñu jàmm ñun ñun ñu duñu démb lépp la ñu fekk yow bubs robinet aide à la presse dootul amati te booy jàngee ay abri provisoire luñ ko def aide à la presse du am te militaires yi dëgg ci ay mine te joxuñu leen ko toog rek sol say verre mel ni golo gu ndaw jàkkaarloo sa paa boobu ni sa maamu golo isin fi ngeen def naan Ousmane Sonko isin fi neex mën ngeen wax mais sénégalais yi mu leen dund xool Ousmane Sonko mu leen ci dara noppalu leen noppalu leen li gars yi deful mu leen ko réussir jàll ngeen ko fépp jàll ngeen ko si diine jàll ko ci physique jàll ko ci lu Macky Sall deful ak état bi du un simple singe bu toog jàkkaarloog benn vieux singe ñoo koy dindi Ousmane Sonko moo ne suñu xol projet bi nañ ko bind démb projet bi nañ ñëw seen projet bi amatuñu suba ñoom lañ koy joxaat bul sonn ASC batterie faible zéro pour cent un pour cent loolu rek ngeen di am sénégalais yu dofuñu mais arrêtez changer de méthode quand même mais toog sax rajo boobu di kalu ñee naan non projet bi ah démb lañ ko bind ne seytaane ah albafta bullshit ma nii nga ah game over game over réew mi jël na nu mu moom voilà jëna power to the people amatul ay dóor amatul ay affaire yoonu quoi ku sa xol di métti